wa man tabiahum bi ixsaanin ila yawmi diin mbokk yi mbokk jullit yi mbokki téléspectateurs yi nga xam ne ñooy suivre seen télévision Safina TV ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen ñaanal yàlla jàmm ji yaatu waaye di nuyu kilifa diine yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi nga xam ne fa tabaarakallaahu gannaaw yàlla jàmm ji nekk ci réew mi yàlla nga ko jaarale ci ñoom yàlla na yàlla سيني فان fan te yokk seeni wér fa tabaarakallaahu macha allah nuyu kilifa aada yi ñaan réew mii di Sénégal yàlla na fi yàlla dotti jàmm dotti sutura ak xéewal ci daraje sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa tabaarakallaahu nuyu sëriñ al Khalifa nga xamne tay turon dom lañ wara waxtane mu sayyid abou bakkar si borom la 25 mars fa ma sha allah. ñu ngi nuyu sunu waajur bu baax boobule di ñaan yàlla yàlla na yàlla guddal fanam yokk wiram ci daraje sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa tabarakallahu nuyu bu baax Cerno Bachir Taal ziyaar ko bu baax moom tamit ñaanal ko yàlla yàlla na yàlla guddal fanam yokk wéram ci daraje nabil Mustafa sallallahu alayhi wa noonu la ñuy def nuyu Sëriñ Muntaqa Mbàkke ca Tuubaa ñaanal ko mom tamit yàlla na yàlla guddal fanam yok wéram ak mboolem kilifa diine yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi di Sénégal fa tabarakallahu ma sha allah ñu ci dellusiwaat dag yéen nak ci sen émission madhu Nabi waye tay nak ñu fas waxtane serigne sëriñ Babacar si radiyallahu taala anhu nga xamne mom moy mooy la borom borom la 25 mars macha allah ñu ngi nuyu bu baax Thierno Hamidou Bane di ko ziar di ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla guddal fanam yokk wéram. fi mu bëgg a yeggale mission bi yàlla dimbali ko ba mu yegg fa fa tabaarakallaahu nuyu mboolem ñi nga xam ne nag ñoo nekk ci kër gi macha allah di nuyu nag eh, sama technicien bi nga xam ne moo tax ngeen di jot ci image yi muy alxaaji Sàmba si di ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla ko jàmm bu baax te ubbi ay xéewalam ci daraje sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa tabaarakallaahu awliyaa urrahmaani yàlla moo leen tànn yàlla moo ne man aada lii waliyan faqad azantuhu bil harbi yàlla nee na képp koo xam ne yaa ngi contour sama wëli yu man yàlla yaa ngi may déclarer guerre te ku guerre ak yàlla xam nga ne doo am ndam kon wëli yu yàlla yi yàllaa leen tànn def leen ay xarit may leen li mu leen may fa tabaarakallaahu ci biir awliyaa yooyu nag tey ñu tànn kenn bëgg koo waxtaane muy sëriñ Babacar Sy tabaarakallaahu borom le 25 mars bàyyi sëriñ Mansour borom daara ji bàyyi sëriñ si Ahmed Tidiane si al Maktoum bàyyi sëriñ Abdul Aziz si al Amin fa tabarakallah macha allah sëriñ Babacar si kan mooy waajuram ñu ne Seydil Haaji Malik radiallahu taala anhu ñàkk sikki si jàmbaar ji ki bëgg Seydina Muhammad ba jeex tàkk ci moom ki nga xam ne sëriñ Haadi Touré nee na nee na kam aabidin zahidin kam aalimin wariin kam waa saalikin waasilin lawla kama kaana sëñ xaaturi nee na bëri na kuy jaamu yàlla teg ko ci yoon bëri na ku sóobu yoonu yàlla yegg bu du woon ak doo doo ko am kon kooku mooy Sidil Xaaji Malick ki nga xam ne moo jàngal ñëpp yee leen ba kenn réerul kooku mooy woyjuru sëñ kër Si tabaarakallaahu kan mooy woyjuram bu jigéen ñu ne soxna Roqiyatu Njaay nga xam ne fa tabaarakallaahu jigéen ju sell jigéen ji yiw jigéen ji mën a jaamu yàlla jigéen ji sàmm macha allahu nga xamne la dalon sayyidatuna khadija ti sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam moko dal ci cheikh sayyid al haji malik radiyallahu taala anhu serigne babakar si mu ngi juddu a 1885 tabarakallah mom serigne babakar radiyallahu taala anhu bisu altine la tombel xam nga tay sir bi mam sayyid haji malik bim ko talife ba mu yegg mu ngi yegg dimanche ci ngoon bët set di altine sëriñ Babacar si juddu moo tax sëriñ Babacar si ak Taysir ñoo maase waaye en même temps sëriñ Babacar si ñëwaat na ci biir Taysir wa kullana rabbi fi kulli al umuri faman man yakun kazalika yalqa al yusra ya allah xam nga al yusru bi firi jappandi soo ko calculé mu ngi lay jox 541 di tolloog Bakar si moo tax mag ñi daan wax naan faju aajo gaaw na ca mbay ndax borom Libris Abdul Aziz ad-Dabbaax dafa wax ne wa axsa kulla shay'in adada bi yàlla juñu ci alxuraan maanaam chiffre dafa am solo ndax chiffre ci la tubaab yi sukkandiku ba nga mën a jël téléphone woo sa moroom mu nekk ca Amérique ngeen di jokkoo dem sax ba léegi sax mën nga koo woo mu lay gis nga koy gis tabaarakallaahu ñoom xam na lan mooy lan mooy chiffre nit yalla bu nek setur sa tour dafa am lu mu jàpp waaye turu baba keur Si soko de xol mu ngi japp wa ufawwidu amriya ila allah wa ufawwidu amriya ila allah limi tekki mooy sama mbir yeb jebal nako sunu borom ta ku jël sa lepp jox ko yalla yalla téel bopam boko kalkine mu jox la 541 abou bakkar si muy ben ñaaral bi allahu samiu mujib yalla moy aji dégg ji moy aji wuyu ji soo ko calculé mu jox la 541 tolloog Aboubacar si loolu la muy la la muy la muy dëgëral rek mooy la mag ñi naan faju aajo gaaw na ca mbay ndax loo ñaan ci barkeem yàlla dégg la ndax tur li mu jàpp moo tax tabaarakallaahu te it loo ñaan ci barkeem mu yegg ci yàlla ndax daal jébbal yàlla léppam moom sëriñ Babacar si bi ci des al yusru bi firi jàppandal nga xam ne ku ko yàlla defal lépp loo laal mu nooy baatu al yusru boobu yàllaa ngi wax ci suratul euh, alam nashrah naan fa inna ma al usri yusra yàlla nee ni mbir yi bu taree ba dëgër na la wóor ne rek boo mu muñee tuuti rek la cay topp rek mooy mu yomb lépp ay baax après al yusru boobu mu ngi tolloog 541 tolloog Aboubacar si nga xam ne kon sëriñ Babacar si kenn du moom fa tabaarakallaahu sëriñ Babacar si nag nekk wëliyu boo xam ne jaarul ci ndaw moom sëriñ Babacar si dafa judd rek doon mag. tabaarakallaahu moo ma sa taxaw ne masumaa mooy yàlla te loolu bépp wëlli yu bu ko wax te nekkul dëgg dañ lay dégraté wàcce la moom moo ko ma sa wax moom sëriñ Babacar si kenn fekk ko ca moo ma sa ne masumaa dog mbokk masumaa fecc wëllëre man Babacar si moo tax koo ma sa àndal dem ci sëriñ Babacar si daadi di ko koy présenté ne kii sama xarit la boo fa delloo te àndoo kooku mu laaj la ko tabaarakallaahu ndax fonk kóllëre moom sëriñ sëriñ Babacar Si radiyallahu taala anhu moo tax mag ñi nga xam ne ñoo bokkoon ak jamono ak moom yu ci bëri seede nañ ci moom ci ay kàddu def ko ay xasida ki ci njëkk mooy alxaaji Mansour inspecteur tariqa bi borom ñaari kaala yi nga xam ne ba mu demee ca Côte d'Ivoire fa tabaarakallaahu toog ba yàgg xel mi dem ci soppeem toog ba yàgg xel mi dem ci xaritam sëriñam magam di sëriñ Babacar Si radiyallahu taala anhu mu ne qasidan nahwal khalifati qul lahu taxayyara qalbi khayratan ay ay khayrati Alaji mansur neena yow mi nga xamne ne yaa ngi départ jëm ci sey serigne babakar sallallahu taala anhu man Alaji mansur mang ngi lay yóbbante boo demee ko ah sama xol baa ngi mangi maa ngi jaxasoo te dara waral lu ko rek lu dul sopp gi ma la sop yow serigne babakar sallallahu taala anhu ndax nak serigne babakar Si mom sop ko rek doyna ngeenel mu ne ukaabidu xusnan baada xusnin wa qad jarat dumuuci wa maa lii fi dumuuci bi xiilati alaaji Mansuur nee na maa ngi jànkuwanteeg ay njàqare njaqre lan la sopp sëriñ Babacar si namm ko lool bëgg koo gis te sori lool fi ma nekk sori na ak sëriñ Babacar si njàqare boobu jàpp ma ba mënatuma téye sama bopp sama ronkoñ yaa ngi wadd waaye aw ma pexe mënu ma koo téye parce que fa muy jóge moo sori te la koy génne moo ma ëpp doole man man alaaji Mansuur radiyallahu taala anhu ndeysaan mu ne imaadi wa in azza alwusulu fa haakum janaanan safiyul wuddi min kulli wijhati alaaji Mansour nee na man sama keno sama ndëgërlaay sama wéeruwaay mooy sëriñ Babacar Sy radiyallahu taala anhu donte nag fi ma nekk sori na mënumaa yegg ci moom waaye moom mooy sama wéeruwaay mooy sama ndëgërlaay ñii ñoo xam kan mooy sëriñ Babacar Sy radiyallahu taala anhu alaaji Mansour ne sëriñ Babacar Sy sopp gi ma ko sopp jéggi na dayoo bëgg gi ma ko bëgg jéggi na dayoo dama koo sopp ba jeex takk ci moom ba aw ma benn pexe mu ne na aytu wala aqsid firaaqa sawaadikum walakinnani abdun bi gayri machiati mu ne ah mag sama sori naa la de waaye billaahi sori gi ma la sori bëgga a teqali ko ak yow taxul waaye nag damaa doon ab jaam boo xam ne rek maa dox lu dul ci coobar ak yàlla te yàlla dogal tey maa ngi Côte d'Ivoire fa tabaarakallaahu waaye nag sama jëmm ji ak sama xol bi mu ngi foofu ci Tiwaawan yàkkamtiwuma lu rek dellusiwaat Sénégal ba jàkkaarloog sa jëmm ji di yow sëñ Babacar Si mu ne fa aani abal mansuuri samsi zamanihi wa misbaaxi ahlil ilmi basil xikmati alaaji Mansuur nee na kii ma namm ci wax ji nag kenn rek la mooy abal Mansuur ki nga xam ne mooy bàyyi sëriñ Mansuur borom daara ji borom daaira yi borom limousine bi borom xam-xam bi borom wilaaya yi borom prise yi borom kër kano yi borom saa maam ne kooku laa mu ci wax ji muy sëriñ Babacar Sy radiyallahu taala anhu kookoy kan mu ne sam si zamanihi mooy jant jamonoom sëriñ Babacar Sy ci jamonoom moo nekkoon jant bi nga xam ne moo doon leeral mboolem awliyaaw yi ci moom la doon tëbbee leer xam nga xutbaaniyatul uzma bi nga xam ne góor yàlla yi moom la ñuy xëntoo nga xam ne ku ko ci am rek jàpp nga ne la nga bëggoon ci yàlla yëpp am nga ko abo su vingt 24 heures la ci def monde ci xam ko sëriñ Babacar si ne def naa ci 12 ans kenn xamuma ndax dafa nëbbu woon moom sëriñ Babacar si nekk woon ku daan wanewu dafa nëbbu woon moo tax wilaayaam li ci feeñ la mu la ci des moo ko ëpp doole mu ne wa misbaaxu ahlil ilmi borom xam-xam yi yi jamono yi bokk ak Serigne Babacar Sy jamono Serigne Babacar Sy moo nekkoon seen làmp bi nga xam ne lu leen jaaxal ci xam-xam moom lañ koy laaj mu leeral ko waaye baasi la xikmati Serigne Babacar Sy xikma bi daan bàyyeekoo ci moom mu koy génne doyo na waar jéggi na dayoo te yàlla ne wa man yuutil xikmata faqad utiya xayran kasira man yàlla ku ma jox xikma jox naa la yiw bu dul jeex waaye Serigne Babacar Sy yàlla def koo jox xikma bu baree bari alaaji Mansour ne basil xikmati alaaji soor ne kii may wax aminun ku wóor la naqiyul qalbi ku set xol la xol ba daa set wecc moom sëriñ Babacar Si ëmbalul kenn bañeel dencalul kenn lu bon ci xolam ba daa set wecc leer nañ moom Seydi Aboubacar Si radiallahu taala anhu mu ne man nag man amruhu ala mooy ka nga xam ne nag ay mbiram dafa kawe dafa kawé lol mom serigne Babacar kersi am ñu né min amrihi kullan ñaar riwaya ñoo na fajrin bal kasam si zahirati mu ne sëriñ Babacar ay mbiram ni mu feñé ta lèr dafa mel rek fajar gu xar gis nga bu guddigi gi ba fajar gi ñew lèr fajar gi ni muy dégager lëndëmu guddi mu lèr nañ serigne Babacar kersi ay mbiram non la léré nañ alaaji Mansour ne bal li fi nek sax kasam si zahirati dafa melni rek jant jant njolloor mom serigne xam nga jant njolloor dafay leer nañ benn lëndëm dootoo ko gis sa néeg sax ba fa duggee mënoo mënoo gis lëndëm ndax leeraay jant bi kooku mooy sëriñ Babacar Sy radiallahu taala anhu nag moom rek a nekkoon xalifa jamonoom foofu mosaane bind leetar ne ci xalifa la jëm xel yi kenn rek lay daj muy sëriñ Babacar Sy radiallahu taala anhu waaw kooku mooy sëriñ Babacar Sy من فقيه أديب زانه العلم والتقى زريف رقيق الطبع في كل لحظة الاجي منصور نينا سرين بابكر سي فقيه كدق فقلا دفعن بن جمعنا بن النار نيو تياوان تي جمعنا سرين بابكر صدي الله تعالى عنه غانسي متومبك الجمعة ني دم تي جمعة جا نار بلا دم جيته غاي خطبة نار بي تخاو كما سي جيته sëñ Babacar si nag ah bi bi bi ñu xutba mu dégg baatu naar bi moo gis ne daal ñi mu xamoon ñépp baat bii du seen baat mu yëg ne kon am na lu xew mais bi mu yegg yegsee ci jàkka ji gis naar bi di xutba fekk naar bi xutba ba pare ba ñu commencé julli daa ñëw rek ne leen sëlmal leen gaa yi sëlmal ñu xutba waat bi ñu xutba waatee ba noppi moom mu yëg ci kaw mimbar moom sëñ Babacar si daa di xutba daa di jiite gaañi daa naar bi yow musaafir nga jumaa waru la tabaarakallaahu moo tax ba ñuy delloo ca kër ya rakkam ju baax jii nga xam ne moo ko doon joobe boobu ba léegi alaaji mun suur daal di jël xalimaam ne fa waa ajaban fa waa ajaban li cheikhi laqad saluhat salaatul jaamiina walaw laaka salaata lasaduha bi taxliitin yaumul xaadirina mu ne kaay leen yéemu way way kay len yemu ci sama serigne bi wa deug yalla sunu julli gi bu du woon ak mom tay mu yaq xam nga ne kooku mo ñak ñaan serigne taala anhu kon faqihun gi alaji Moussa wax ci mom amna lu wir la ndax lo firnel nako ko nak adibun ku am teggin la waye adibun ku mën way la adibun ku am xam-xam la ndax batu adab dafa lumifiri, lu firi al adab day firi teggin al adab day firi ku mën a ku ma ko mën a way waaye al adab day firi xam-xam moo tax waykat ba nee na wa naxwu wa sarfu wa lugatu yaa siqati baadal balaagati sammihil adab nee na boo amee naxwu boo déggee naxwu dégg sarf dégg luxa dégg balaaxa nee na yow am nga xam-xam kon foofu adab foofu xam-xam na fi firi waaye adab dina firi adib dina firi ko mën a way mu ne sëñ Babacar Si nag adibun ko mën a way la boo xoolee ay woyam xam ne ko mën a la woy na woy boo xam ne ko woyee yàgg na waaye ba tey gisaguma ko firi yaa saaidan fi sabaki wa saabixan fi baraki la taxqiran na kii ka kaki kaki kii ka kii ka kii ka kii loolu daal maa ngi wër ko ko mën firi mu firil ma ko alaaji ne sëñ Babacar faqihun ku dégg feq la waaye adibun ku am teggin la adibun ku mën a way la zaanahu taaral na ko التقى العلم زانه تار النك العلم خم خم با والتقى أدرك لي الله يا سيد بابا كرسي كو أمر رجل يا الله مم سيد بابا كرسي رضي الله تعالى عنه نوحنا على ساقنا نينا مسلم موي موي الله كو خم رجل يا الله ديسان الله جمهور سورني أنا روا أحيا البلاد bi asriha wa kal badri wal misbaaxa fi kulli baldati alaaji Mansour nee na ki nga xam ne moo leeral jamono ki nga xam ne moo dundal jamono ki nga xam ne moo mel ni jamono comme weeru badar kooku mooy sëñ Babacar radiallahu taala anhu moo moo moo ne ah sariya bi nag ku ko duut baaraam man Babacar si duut la baaraam tariqa bi ku ko duut baaraam man Babacar si ma duut la baaraam mbokk gi ku ko dut baram man Babacar si ma dut la baram ko amun fulle la ci bopam mom seigne Babacar si taala anhu alaaji munsur ne khalifatu samsi dini ki moy khalifa bi nga xamne moy jantuk jantug waye waris malik mo dondu cheikh sidil haji malik tabami ba muy dondu sidil haji malik dondu na sidil haji malik jurom ñaari at mo do do a génn àdduna alayhi ridal maula wa anna wa itrati ñu ngi ñaan yalla ngërmandeem yàlla na nekk ci kaw sëriñ Babacar Sy waa yàlla na nekk ci ñun waa yàlla na nekk ci njaboot gi yépp amin sëy alaaji Mansour ne nag wa man yaqtafi asaarahu min talaamisin min al aali wal ashaabi min gayri sunyatin alaaji Mansour ne ne képp koo xam ne yaa ngi xeeñcu aw ja aw yoonam moom sëriñ Babacar Sy ci taalibe yi wala ku mën a doon wala ci xarit yi wala ci àndandoo yi wala wala ci soppe yi maa ngi ñaan yàlla ngërmande yàlla yàlla wàcc ci sa kaw kon nag wa ballig salaaman faiqan wa mukarraman ilal xibbi najli cheikhi xaawil maziyati mun Mansour ne maa ngi lay jottali nuyoo yow mi nga xam ne yaa ngi jëm tiyaawan boo demee nang ma nuyool sëñ ba nang ma nuyul sëñ Babacar nuyu bu kawee nuyu bu tedd nang ma nuyul sama soppe ba nga xam ne ngéneele ci kawam la wàcc kooku mooy Sidi Aboubacar si radiyallahu taala anhu moo tax Serigne Cheikh Ahmad Tidiane si almaktum waxoon abuna Abu Bakrin wa in kaana fi lqabri radina bihi cheikhan ila axiri dahri si Serigne Cheikh Ahmad si almaktum dafa waxoon ne ah sunu way jur bii di sëñ Babacar si donte ne génn na àdduna ñu suul ko denc ko ci biir suuf ñun day d'accord nañu ba tey mooy sunu sëriñ ndax nag dafa mat li mu doon moom sëñ Babacar si radiyallahu taala anhu motax hayti ya ñang ca ndar waxon ko ne ko ya laytani kuntu na'lan aw akuna sariran lil khalifati yamsi al qutb wal jahu hayti ya ñang da xol serigne babakar sima yag mu khol martaba ya xol maqama ga xol ragal yalla ga xol tekki ga serigne babakar si oh limi ku set mo serigne babakar si ku yiw mo serigne babakar si ku tey mo serigne babakar si ku dal mooy sëñ Babacar Si ku bëri wilaya te bëri xam-xam li la koy xamal rek ay woyam xol ko rek ay woyam kenn du ko ndugé marché moom sëñ Babacar Si waaw arab yi nee na takkallam tonraf boo waxee xam yaay kan waaye ku yeur mbindum seigne euh, baba Babacar Si di nga xam ne kii euh, borom xam-xam pire ngi ni ala xaaci jangang ne ak neexo ma Si di ma sol wala sax ma lal sëñ Babacar si di tëdd sama kaw ah kii moo xam sëñ Babacar si mu ne xalifatu cheikhi la zalat maathirukum tatwa wa tatlu mada za dëhr marqaahu mu ne sëñ Babacar si sa jëf yi nga fi jëf mu rafet lool nga bàyyi ko fi lu jamono yàgg yàgg yàgg dañuy toog di ko waxtaane moo ñu ngi nii toog di ko waxtaane la zalal ajnaasu yatuuna dawaira yabxuuna ziyarata yaati cheikh jadwaahu ala ci ñang ne du mossa beradu deñ ba àddunay tukki daayira yi baye ko fu nek di dem tiawon di sering serigne babakar si ngir sakku ci mom ay may ndax yalla ko sedd mom serigne babakar sallallahu taala anhu Dan na wax ne al haji malik sax bu nek wor sama baye du tema don khalifa cheikh kon programme yalla la fa tabarakallah ma sha allah kon moy sayyid abou bakkar si radiyallahu taala anhu moo tax Cheikh Alxaaji Abdul Aziz Si Dabbaax nga xam ne daan na wax ne mbindeef yépp buñ jëloon seen cofeel ci sëñ Babacar Si teg ko ci balance jël sama cofeel man si man man Cheikh Alxaaji Abdul Dabbaax teg ko ci balance sama cofeel wat seen cofeel Cheikh Alxaaji Abdou dafa bëggoon sëriñ Babacar Si ba jeex tàkk ci moom ba mag ñi sax wax nañ ne boo amee aajo nga jang fatiha def ñetti peru al fatih def ko hadiye ci rasulillah ne cheikh alxaaja abdu ciofel gi mu am ci serigne babakar si budé deug la yalla ma yalla may nangam neena bo doxé yalla defal li tax nak ma ñame ko wax dama ko testé gis preuve bi motax tay ma wax ko bima ko damay dem Dakar jugé Tiwaawan bima ñëw ba tollu ci gaar bi sama xel dem ci ma def ko comme ni ma ko waxee jéggi tali bi taxaw né bu fekkenté né Cheikh Alxaaja Abdou tiofel gi am ci sëriñ Babacar ci deug la yalla na am auto bu ma yóbbu Ndakaaru ben 4x4 mo ñëw mu upp ko rek mu taxaw mako ko dooma yóbbaale Dakar mu ma yéegal ma tok ci kanam ma ak waji ñuy waxtaan di waxtaan waji indi ma ba Dakar ci jamono joju bu pare jëlaat 2000 francs jox man ma jël la paas taxi dem sa kër kon nak laysal ayanu kal khabar arabi ne li nga lamb daj ko bok la li lay nettali nak wa alaaji abdu dene bu len di gam-gamle mbër wa dàkki suux ak gox te xam ne bu dee du tax mu di gar mune khalifatu shaykhi wal mukhtar ya fi di mbeur ya fi fajal diine ay danam te ñepp la war si ub nga lamb ji hazal asri ken du ko min ku nekk sempi na sampam dellu goor niki xar qul maa tashaa'u bi mal wahaabu moo la ko may min fadlihi lépp loo wax loolu am nga ca ngor laa xarwa an yarisal mawluudu waalidahoo qawlan qadiman lakum wal qawlu fiika zahar wa maa huna sayidi cheykhun yusaarikukum bi ma bihi rabbuna aataakahu ci lu wér ya yaayannu yen bi ta wonko sakko kula aw ta jambato ndax ne miig billahi ya bari ngor alaji adune tous len ko tous len ta ko bil amdahi ya koyayo dan sajiga ngi te yit moo di mi ko jar minal basiti madidin kamilin ramalin wa wafirin rajazin bañ di tamaaki sabar alaaji abdu nee su ngeen dee woy sëñ Babacar Si na ngeen ko woy ci baxaru basit mbaa baxaru madiid mbaa baxaru kaamil mbaa baxaru ramal mbaa mbaa waaye nag bu leen ko woy ci tamaaki sabar eh nañ bàyyi tama yeeg sabar bu leen woy sëñ Babacar Si ci tama ku ko bëgg woy ko ci basit mbaa madiid kaamil mbaa ramal mbaa waafir mbaa rajaz mbaa yenen yi ci dess waye bu len ko way ci ay tamaki sabar ah bu len ko way ci ay guitar yep bu len ko ci way abdu ne lama ataw nekulo fi sakku fem dinu nax wut ay dumat akabal, baal ku beug ak di jabar walam taqul lahum ñew leen ma jaamu walis zul arsi malikuna ak sa njabot gi la wër sëñ Babacar radiyallahu taala anhu alaaji Abdu nee na ko nekkoo fi naan kaay leen jaamu ma nekkoo leen fi naan kaay leen ma ko loo ñu digal nañu jaamu jalla jalaaluhu wa azza kamaalu disan mu ne ko bi xittadoo te wéral ku roy ci moom dinga raw yowmal qiyaamati it doo dégg riirum saxar alaaji Abdu ne roy leen ci sëñ Babacar si ku ci roy bu yowmal xiyaamee doo gis safara tabaarakallaahu doo ko gis doo ko séen waaw alajaab nag yaa dëddu àdduna ak mboolem li nekk ci biir wéetal boroom bi nu moom ngir xam ne dund bii du gar alaaj abdu ne sëñ Babacar Si moo dëddu àdduna ak lépp lu nekk ci biir wéetal buur yàlla mi nga xam ne moo ñu bind te xam ne àdduna dund gi du sax xam nga ku yakarna dund gi moy sax moy baye yalla di jamm leneen waye bo xamé né bala yag nga faatu lu bari do ci dugg waye fi jamono toll nak tabarakallah nit ñangi jaay sen ngor ñi ñu ngi jaay sen diine ñi ñu ngi jaay sen personnalité ngir lan am alal légui noko ko rek baxna waye nak tabarakallah kuy xalaat de di xalaat yowmal xiyaam di xalaat bisu taxaway ba di xalaat bisu réglé ba lu bari do ci dugg hmm? alhaji abdu ne si te ngistaloo ndam wo nekko di wut kula naw xanaa taxaw tem tey diglee ka def la la wax lisan tagat nga bakkan yi noyal nga xol yi muhtasiban lillahi mujtahidan tabole wo ci digar wama ma ataana bihi mukhtar yaay kiko xencu qawlan wa fi'lan wa zaakum wirna ping nar alaji abdu na sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam. lamu mu indi muy sunna kiko xencu ci wax ak jëf moy seigne babakar si waaw mako xencu ci wax ak ci jëf mako abal habib wa rabbil ard ya jara ndax sankulo kenn di wax aljanna may kiko yor muneko nak baye seigne habib hmm baye seigne ah, Habib baye soppe bi ah ginnya ne ya jara ndax kat nekkoo fi nan aljana may ki ko yor nga digal nit ñi ñu jaamu yalla te wetal ko ta xam yalla jara jaamu waaw la bal maqalukum moy top topulen te dëggal te ngeen te ngeen te yek ne yalla du neenal yoolu jaam du ko war li fi nek kay sa wax yow seigne babakar Si moy top len yalla te ngeen dëggal ta xamne yalla du neenal yoolu jaam tey du ko war lu waay jëf jël ko loo fi jël jëful doo ko mën a jël nag kon nag faaw nga jëf nag pour nga pour nga mën a jël la nga jëf kay kon fa tabaarakallaahu sëriñ Babacar Sy kenn du moom ahsanta nawbatakal garraa kenn xarabul fal kullu yaskuru tey ñaan ak def wéer a Hmm. ku dib jirim nga yërëm miskin bu ñew nga teral ah ku xaacu ñew ah nga fajal a ah, jom ta do fayu ta do fayu bor alaaji abdou ne ko miskin bu ñew nga teral jirim bu ñew nga teral ku am aajo bu ñewé nga fajal ko jom te it do fayu bor kooku mooy sëñ Babacar taala anhu nga xamne dundam gip, da ko passé ci jamu yalla dundam gep da ko passé ci orienter dom adamay waye tariikha cheikh nak mu tey ko ci loxom doxal ko lépp lu way juram bu góor defon ben mu sidir haj malik seigne Babacar si daf ko fuk yàlla nañu yàlla taf si barkeem yàlla nañu yàlla taf si barkeem yàlla nañu yàlla taf si barkeem ci daraje Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ran gi la am 64 ans ci bir souf mom seigne Babacar Sy radiallahu taala anhu dundam gi limu def yeb mu ngi ko def ci diir 72 ans macha allah te gis ngeen li fi liggey lépp mom seigne Babacar Sy radiallahu taala anhu doy na rek ci nga xam baba Babacar si sëriñ Mansour borom daara gi sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane al Maktoum sëriñ Abdul Aziz al Amin ñet ñi rek doy nañ la sëkk nga xam kan mooy sëriñ Babacar si ndax Sidil haji Maalik danaa wax na man liggéey mam Ousmane la bàyyi leen ma am mag lima am sum sum magge ngeen xam man may kan waye bi sëñ Babacar si magge sëriñ Sidi Ahmed si alaaji Mansour Cheikh Alhaaji Abdoul Aziz Sy Dabakh maam Habib Sy xam nañu kan mooy Seydi El Hadji Malick waaye sëriñ Mansour borom daara ji sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum sëriñ Abdoul Aziz Al Amin woo ñooñu xamal kan mooy sëriñ Babacar Sy radiallahu taala anhu kon yal na yàlla yokk ay leeram yal na yàlla yokk ay leeram yal na yàlla gën ko yéege ci aljana yi gën kawe te taasu si barkeem ñu yàgg di ko ñaanal ci daraje Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam salaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu xalifa moo mata doyloo bu leen ko fàtte di ñaanal xalifa mbay fi nekkoon muy yonent lakk di loote jabar bi Maodo si boota lay bu la mësaana may toogaay ba jox la heure ngir toogaay bu heure bi jub see mam bay taxaw na temm ci loolu. bu leen ko fàtte di ñaanal. xale ba may mi fi nekkoon. mooy yore xilaafa ji boota. jaboot gi Maodo si boota. lay nan ko Aziz diw ñëw naam. ma ko joxoon heure bi naam te góor dafay sàmm kàddoom. dal di taxaw lu ci loolo bu leen ko fàtte di ñaanal mm-hmm. xalifa mbay fi nekk mooy yorom te làpp di boota jafa gi Maodo si boota di lay ku la masaana indi ci boo dellu seete àndoom moom mu laaj lu xew ngir maandoom as gor dafay gestu démboo bu leen ko fàtte di ñaanal jaboot gi Maodo si booto. li lay gor du xam fatu du ti fen du ñàkk sàcc du soppeeku du jàpp bay am na wu leen Seydi Mbaye la nu bàyyeel. leen ko paase di ñaanal. xale ba mbay mi mi nekkoon. pijibotă Jabăgă maudă si Lai rodu Khalifa khalifa Lai miraasi Cheikh ne na kenn du ko fàtte ci Sénégal ak li ko wuute ñépp ko seede ci loolo bu ko fàtte di ñaanal aha xalifa mbay mi ngi nekkoon مديباتا جبت مولا سباتا ودخمك ميمين جتايم دين كلك كل صفتهم لولن وخيت مبيل نجم mag ñaa ngi ni laaj leen ko leen papa te di ñaanal wallaay xalifa mbay mi di nekkoon mu yoroon la ko jibaata jabari Maodo si bootaa. bilaay xale yi juddu ci ginnaaw mbay. gisuñu mbay te mbay lañu gëm. xale ko ci waxal mooy maamam. pour yàlla moo ko ko jagleel. xale yi juddu ci ginnaaw mbay. gisuñu mbay te mbay lañu. mbay lañu gëm waxal mooy maamam. pour yàlla moo ko ko jagleel. ci ginnaaw bay suñu bay te bay lañu bëggale ko ci waxal mooy maamam pour yàlla moo ko ko jagle ci ginnaaw bay suñu bay te bay lañu bëggale ko ci waxal mooy maamam pour yàlla moo ko ko jagle ñu ci ginnaaw mbay mi ñu mbay te may leen jàppale ko ci waxal mooy maamam bur yàlla moo ko ko jaglele ci ginnaaw mbay si ñu mbay te may leen jàppale ko ci waxal mooy maamam bur yàlla moo ko ko jaglele tol ni la sargal Seexul Xalifa sunu maam booy te dol jàmmal njabootam ni àndandoo di siyaare bu leen ko fàtte di ñaanal Xalifa may ni fi nekk moom yore la fi di bootam njaboot Maodo si bootam